waaw tey bu jeexul lu suñu taxawaay mooy dañu béykat jusqu'à ce que suñuy ñaxtu li ñuy ñaxtu ñu daaru koy faj feeg li ñuy ñaxtu fajowul dama yaakaar ni kon chantier bi day tëj dañ koy tëj ba keroog ñuy ñaxtu ndaxte chantier bi pétrole ak gaz la moo tax occidentaux yi daal di profité tënk suñu njiit yi ngir seen i intérêt bopp seen intérêt bopp yooyu noonu moom la ñuy jëlaat dellu si waat di ko jaay ñu dañu wax ñun jeunesse Sénégal day jot na tey daal di wax personnalisation boobu tënk ko gars yi ko yóbbaale jot na tey ñu tax daal di jël carrément Sénégalais grand yow la métti Valeu, Gui!

je rappelle que vous êtes en direct euh, sur la page de Frappe France euh, Dégage. Euh, donc nous sommes actuellement ici à, la manifestation en tout cas intitulée Kaddu Askan Wi la parole au peuple organisée par le Front Multilutte Doyna dont le FRAP, Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricain, est membre. Donc euh, voilà, nous, sommes là avec euh, tous les collectifs, en tout cas victimes d'injustice. et euh, continuer à, à, en tout cas à partager le live en attendant voir ouais. donc ce que nous lançons vraiment on appelle à, à notre maire euh, non joxal keneen moom déggu ma. Oui, c'est lui en tout cas, le camarade Bentaleb Sow, il est là, comme toujours. C'est où? Et euh, avec

Ça, c'est les étudiants du FRAPPI 4. C'est Gérard. C'est Gérard qui nous pas reconnu. J'avais fait une conférence de presse euh, lors des événements de Ousmane Sonko au siège du FRAPPI. Oui, oui, oui. Avec les masques. C'est ça.

grand waxal ma mille hectares bi yëpp dafa sos ci dex bi dañu dex boobu boobu lañu yaakaar monsieur Petite Réaction yaa ngi en euh, sur la page du FRAPP France dégage est-ce que mën nañu xam exactement Eiffage Marine lan mooy seen problème tey day jël. waaw Eiffage Marine tey lan mooy seen problème parce que Eiffage Marine ñoo ngi dund colonisation ba léegi loolu moo waral tey pour yee Eiffage Marine yëpp daal di génn daal di taxaw daal di wax ni colonisation boobu noonu dañ koy tàgg bu jeex na tey fii ci Sénégal parce que waa Marine lu ñuy dund métti na kenn mënu ko expliquer munoo am salaire bu fixe chaque mois sa salaire day gën a wàcc ba weer bii nii moo ci gën a bon ñu bëri fayee nañu ay 7500 ñii ay 15000 ñii ay 20000 ñii ay 30000 ci weeru koor bu toll nii nga liggéey weer ba weer bu dee di ko liggéey 12 heures de temps chaque jour ngay liggéey 12 heures temps nuit et jour ba pare mënoo gis sa bopp ci li ngay fayee ko looloo tax waa ouvrier Eiffage Marine daal di wàcc daal di wax ni loolu tey jii nii day dagg te day jeex. merci beaucoup. anonin direct euh, page est ce que minen haalande ah. e coulard hoɗum woni probléme association moon noon coulara amen gari ɗo ko woodi ko waɗi amen min boliro ɗum ko wonɗum ko woodi ko leydi gokkirani ɗo amen e ko projet bananar mo addiro amen ɗum ɓamtare joni e ɗum e ɗo mairie laaɓe keɓiɓe faalaɓe joni noon ɓanno maire ɗoɓe dewi ko groupe municipal eh, eh, municipalité ɓemboori gokkimo 1000 hectare joni o débit ya yimɓe famano presque message yahano ha ɗum pi waɗi ko waɗi ko ha joom o han waɗa exploité les terres là ɓiɗi andi no woni yarde mene min calaki projet o min mbiyo noɓe ɗiran men o 1000 hectare par ce que janggo janggo cukalede saare cukalede tunnundu wawi heɓoyde jawdi wiya kañ kala faala wadde e eh, projet jakaruji projet kanji ɗo takkomayo ɗo si tawi o pi 1000 hectare ko takkomayo o ta goto okkaɗo ta men bulliri min o wona ko o waɗa ɗum wona e négocié à zéro ko ɗum ɗo pakour heɓata ɗomo on sal heɓata wonɗoɓe romɓe min ganda honɓe gollitan minen ko ɗumen faala men ɗo hande minen golliro ɗo ok merci beaucoup donc je rappelle que c'est l'association en tout cas le collectif des associations et regroupements de la commune de Pacour eux aussi ils victimes de ce ce corona foncier en tout cas y a un promoteur du nom de un certain Sall qui a pris à Pacour 1000 euh, hectares donc c'est voilà c'est ça le Sénégal et nous allons continuer à prendre la réaction de, en tout cas, moi des uns et des autres, en tout cas. est-ce mun nga ñëwaat tuuti nga wax ñu exactement lan moo nekk yéen seen problème yaa ngi en direct ci page su FRAPP France dégage. yaa ngi en direct ci page FRAPP France dégage est-ce que mun na ñoo gis nañ fii vraiment ñun ñëpp ñu génn ngeen mais dafa maanaam bëggoon nañu xam exactement lan moo sabab tey mooy seen génn bi. ñun waa ñun ñooy collectif les Dëgër bi de la Cité Mixa. donc man maay seen président. donc ñun daal lu ñu naqari leen rek la dañoo fekk si suñu ay lieu de travail yaa ngi comprendre loo xamante ni mairie mu ñoo dëgër kër sans ñoo dëgër kër sans sans avertissement sans préalable ñun ñee yàq suñuy bagage donc mu euh, nekk en complicité entre monsieur le ministre de l'urbanisme ak directeur cadre de vie ak euh, monsieur Diaw moo tax tey ñu ñëw fii pour wane suñu suñu naqar. merci beaucoup. parce que lépp lu xew si dëkk bi maire yi ñoo am na ñu jox am ñu des parce que liggéey bi àggaleegul ko woon yaakaar na Macky Sall bu ñëwee daf lay euh, continuer liggéey bu parce que dañ ne état continuité la bàyyi fa kër ya bàyyi fa hôpital bi dem defari taw féer depuis loolu nag ñun ñëpp ñu ngi dund ci calvaire parce que lan lan la ñu ngi fay location fu ñu toll ak suñu jëm talatuñu lekk talatuñu naan te kër koo luyee boo toogee un mois deux mois borom kër ga génne la soo génnewul mu andi lycée ñu jël say bagage sànni ci biir kon tey mën nañu ñoo jël toj suñuy kër amuñu fu ñu dëkk ñu jël fa ñu tojoon ñu jël ko di ko jaayaat ñeneen muy géejawaay léegi ñu ñu war a jot suñuy kër jotuñu suñuy kër ci napp si. amul fu ñu dem. ñu ba ci gouverneur préfecture ak ñu demul ay digle ay digle rek la lu mu jaral ñi ñëw dëkk ci kër yi te moomuñu kër jaral nañ ñu ko ko raw Macky Sall na euh, lu mu gis nga ne moom moo bàyyi seen njaboot yi taxawaay am na ñoo xam ne tey dem nañ ba mënatuñoo jóg ñii dañoo paralysé mënatuñoo dem mënatuñoo dikk bàyyi seen njaboot ñi taxawaalu kon tey li ñu li ñu li nga xam ne daal mooy suñu kii daal mooy Macky nañu jox suñu kër ngir 386 logements su mënee toog di maye des di liggéey des milliers et des milliers de logements sociaux Massama 386 logements ñu lijjanti leen dafa ñoom ak sax ñu lijjanti ngir yàlla ak Macky Sall na leen jël kii moo nekk kàddu bi nga xam ne jël ko yéen On est qualifié, on est employable. tey jeunes yi nga xamante ne am na seen plan mën nañu liggéey loolu rek la ñuy nekk message boobu la ñuy lancé wax ak président man ma passé sa coordinateur je rappelle que yaa ngi en direct ci page frappe France dégage bi lan moo sabab manifestation bi tey. am ay loi yu teg lois yoo xam ne ci mbir mu liggéey la ci mbirum travail moom ay nit yu liggéey benn entreprise jóge fële dugal ñoom fii mën a jalkati loolu ñëpp toog di seetaan ñu signé loo leen contrat huit heures de temps ñu leen di liggéey loolu douze heures de temps quatre heures de temps supplémentaire yoo xam ne fay leen ko naam souvent day am nga liggéey wi huit heures de temps ngay liggéey nga dem ba ci biir waa ji ne la léegi dama bëgg nga liggéey mais daf la ñuy comprendre aduna bi yëpp d' accord ni guddi ak bëccëg lay liggéey guddi di la ñoom ñu ne la heure guddi ak heure bëccëg benn la dem nañ le fay te ñoom am nañ salaire mais salaire boobu noonu ñu mentionné si libale ci seen contrat ñaar duñ ko respecté ce qui seen salaire souvent day yokk souvent mu wàññi ko souvent sañu fay lu gën a néew li nga xam ne moom lañ leen war a fay te duñ ko teg fenn duñ leen ko notifier fenn seen jàkk sa léegi dem nañ ba tëj ñun ñëw bi bi ñëwee seet si ñun ñu toog ñoom def conférence de presse ils leur ont promis des choses mais dañu leen promesse da leen jox ay demande d'explication jox leen ay lettre mise ay lettre de mise à pied ñu ba ko fenn à loolu boole si boole nañ si ay collectif yu bëri yi nga xam ne ñooñu seen suuf lañ jël ñenn ñi seen kër lañ toj ñenn ñi problème liggéey lañ am ñenn ñi jàng nañ ba pare ñu promettre ne dina bu war a jël dem jël ñeneen jël seen i mbokk dugal leen ñoom ñoom ñu ñu mel leen si la liste d'attente. problème bi bëri na dans ce pays de telle sorte que suñu ci waxul ah dañuy nekk ndaa fekk nit problème su amee nag yéen ñoo wax ci yow ak ñi nga xam ne ñooy def problème bi yéen a si yéen a si. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que nous allons continuer à prendre en tout cas ñenn ci collectif yi ñu wax ñu exactement ñu gis ni même ay xale sax ñu fi sa montre carrément que le Sénégal Sénégal dafa métti trop ñu gis ni kii xale asalaamaaleykum ñu bind foofu waaw yéen ñi nekk ci côté yi ak ñi nekk ci ginnaaw Sénégal euh, nga xam ne ci ñaari pàcc lay am tey ñu koy tuddee parole au peuple kaddu askan. mooy dañuy rassemblé wu comme ni ñu ko defee nii sànni ay kàddu ñu woo collectif ñenn ci collectif yi woo seen représentant ñu taxaw fii wax seen soxla wax seen doléance ci kanamu journaliste yi beneen bi ñu topp mooy dañuy def manifestation def marche jóge fii dem ba rond-point RTS foofu lañuy ñuy defee dernière déclaration yi. donc ñoo ngi ñaan ñu nekk ci ginnaaw ak ñu nekk ci côté yi ñu avancé ñëw ci digg bi ñu tàmbali manifestation bi. manifestation bi nag 13 heures la waroon a commencé jeex 16 heures ah loolu la ñu préfet doon lañu waxante ak euh, préfet de Dakar c'est 13 heures 16 heures donc nous avons largement le temps pour faire ce que nous avons à faire correctement n'est-ce pas. waaw euh, naaj bi tàng na koor gi métti na. waaye li ko jar moo ko jar. Sénégal métti na. naaj bi tàng na koor gi métti na waaye li ko jar moo ko jar ndax problème mu sénégalais nekkul en pause ci weeru koor nekkul en pause ci temps korona donc dañuy respecter les mesures barrières sol suñuy masque def suñu manifestation bu ma ko waree kon nag gars yi ñu yor seen masque nañ sol seen masque ngént jam ñaajo ndax ñoo ngi fi waaw collectif ngént jam ñaajo Ibrahima Ndiaye mën ngeen présenté collectif jot sa àq bu jaxaay ñoom ñoo nekk ni Ibrahima lii ak Moustapha Ndong ñoo la ñu waaye Fass Marine Beaucoup de gens te demandaient, donc il fallait que... <laughs>

collectif mu sud de Tambi Crème ndax ñoo ngi fi waaw Daouda Ndiaye moo leen di waxal n'est-ce pas ok waaw moo fàttali leen manifestation bi ñaari pàcc la benn bi ci njëkk mooy dañuy taxaw fi jàkkaarloo ak journaliste yi collectif bu nekk ñëw wax sa problème Sénégal yëpp dégg ko ñi ci war a jot jot ci beneen bi ci topp mooy dañuy jógee fii dox ba rond point RTS sénégalais gis ne am na ñuy dox doxu doxaay ñaxtu am na lu leen senegal Sénégal te bëgg nañ ñi ci war a dugal seen loxo dugal seen loxo su ko defee seeni problème am saafara suñu yeggee ba rond-point PS dañuy def xen camarade Guy Sagna. Donc voici les Sénégalais. Ça montre carrément le camarade Guy Sagna, en c'est une référence. le camarade Guy Sagna, c'est en tout cas, c'est Voici en tout cas Chacun prendre une photo en avec le camarade Guy Sagna. Les gens ont préféré ce qu'on le selfie. Voilà, c'est ça le Sénégal. Hier, il était attaqué, mais aujourd'hui, voici les qui sont avec le camarade Guy Sagna, le camarade Guy Marius Sagna qui se pour le Sénégal, le camarade Guy Marius Sagna qui pour l'Afrique. Donc c'est ça en tout cas, c'est en tout cas, disons que c'est ça. Il a attaqué avant-hier, mais aujourd'hui il est là. de jeunes sont là en de faire des photos selfies avec le camarade Guy Marius Sagna. Et ça montre carrément que, que, que la peur a changé de camp depuis longtemps. Euh, et voici l'exemple. Il y avait des jeunes inconscients qui ont attaqué le camarade du Marissania et aujourd'hui, il y a ces jeunes-là qui sont conscients de la situation actuelle. Et voilà. Et ça continue toujours, avec les photos en tout cas. et continuer à partager également. Euh, c'est la dame. Maman Khady. <laughs> Badiane Khady. Je te rappelle que tu en direct sur la page Frappe, Frappe nationale. Et ça continue toujours avec les selfies. Voilà. Ça continue toujours. laa bëgg lii ni ko sénégalais yi toppee nii lii ça se voit que kii sénégalais yee ko bëggal seen bopp xale jeunesse bee ko bëggal seen bopp. surtout oui oui la jeunesse képp ku koy jéem a laal nag di nga am mhm. la ñu am pour wax leen. wallaay preuve baa ngi nii lii du montage du dara lii. il est attaqué avant-hier et voici les jeunes chacun faut montre que c'est ça Sénégal. le combat que le FRAPP est en train de mener, que le combat du plateforme multidonnaire de mener, que les Sénégalais finalement ont compris. Et c'est ça aussi. Et je pense que continuer à partager le live, continuer, continuer. Et en tout cas, c'est ça. non dem leen dem leen dem leen. teewu leen teewu bon mais bon il y a une chose. produit bi bu fekkee dañuy wax sax dëkk bi mën taxaw nii. waaw léegi dañuy am background quoi background bi mu nekk. mais bu ñu koy gars yi nee na seen caméra rek. naaj bi quoi c'est parce que fond bi. waaw waaw nii nii day def nii rek day jàpp nii rek. ngi ciy déplacé waat. ah. yaa ngi nii lay. non groupe bi. mais dañuy bëgg mu def nii quoi. da ngay déplacé après groupe. ndax foog ñu xaaral. waaw voilà. man kay xam naa ne sax dama la koy bàyyi. jéem comme ça man ma dem jàppale fële gaal. non non. waaw waaye wax de ana kii Vente. En plus, tout le monde, il n'y a pas un camion de l'île. Ouais, c'est ça. Mais voici les étudiants du FRAP. Vous les les camarades, camarades Awa, camarades Khadi, les camarades Djena. Ils là pour soutenir les manifestants. ginnaaw waaw ci ginnaaw rek. Thank Allô, euh, toi, le son est bon. Ok, nice. ça va la moo waraloon sa teewaay fii. la ma waraloon sa teewaay fii nii. jëli masque bi. ah waaw grand naka mu la ma waraloon sa teewaay fii nii.

nekkoon ay jaaykatu di liggéey benn nit jóge fële si làng nga ñëw bu ñoo néewal doole yëkkatuñu foofu yàq suñuy alal yàq suñuy bagage dajale foofu yëpp si mu tegul fenn def ko si si jaay doole loolu moom yëkkati woon fii tey moom la ñuy ñax bu président jëm si oh. ça mu la moo waraloon seen teewaay fii nii incha allah ñett suñu teewaay moom daal ay ndaw yu liggéey la. waaw allo oui allo. ci yooyu lañ nekk daal daal lañu ñàkk. parce que ay ndaw la ñuy liggéey. ñoom suñu bopp ci en face de l' émission. boo demee quoi dañ nekk dañ nekk. ñu nekk ci ginnaaw jëlee ñu foofu quoi jëlee ñu foofu d'accord la ñuy ñaxtu daal waaw loolu quoi waaw ma fàttali leen ñen ñoo war a jël kàddu collectif ñeent jam ñaajo Ibrahima Ndiaye moo la ñu représenté collectif jot sa àq bu jaxaay Ibrahima lii ak Moussa Ndom kenn ki wax wala kenn ki wax français Eiffage Marine André Mendy collectif commune de Pakou Salif Mané Dégué Pisma Cité Mixta Samuel Mokhtar Ba liste d'attente Crème Daouda Ndiaye collectif Medina Wadifa Bakary Fati animateur culturel ndax ñoo ñu ngi seen benn représentant ngeen wax ko tur bi kan mooy wax seen. am na ñoo xam ne def nañ déclaration ba euh, de ABS. déclaration boobu noonu c'est de ABS. non non Assane Cissé. la même chose. allo. collectif des de ABS Assane Fatou Dianka